chers jeunes yu enquête 221 dalati leen jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi ñu commencé ko ak Walf Quotidien mi ñëwaat ci coowuk troisième mandat bi dalal Mame moom mi nga xam ne amul lu mu yekkul Aymérou Gningue ak Amadou Ba Mame Mbaye Niang ne Aymérou xamul tus xamul dara ci li muy wax mënul dara te bu amee lu muy wax moom la concerné waaye concerné wuñu Amadou Ba moom su dee dafa am ay ambition na ko wane na génnee ay moyen wane ko feneen fudul ci biir APR enquête yéeni kaay ne Barça wala Barsàq dellu si waat yaakaaroon nañ ne dina jeex depuis 2007 waaye vague bi mu ngi gën a rek lu toll ak milliards dugal nañ ko ci immigration clandestine bi yaakaar ne solution dina ci am te ba léegi horizon sans frontières gis nañu ne jamono gi la gën a yokk las yéene jigéen ñi dugg ci wàññi bu yeboo ñu xam ne dinañu toog ab duur du am jën ndax jamono ji pénurie jën dëgg moo am ci géej gi Alioune Ndoye toll nii dafa taxaw temm ci xool yan solution la a indi a yàgg direct news kenn dootu ko présenté ti fii Sénégal ndax jalooreem ni mu mel ci mim réew ak bitim réew El Maestro dem tey bàyyi fi ñoo xamante ni moo leen formé bokk na ci Ousa Diallo yéenekaay bi dellusiwaat di ñu xamal dëgg-dëgg kat mooy El Maestro Les Échos yéenekaay dina xarlu ca dëgg-dëgg doomi Guinée Bissau yi nga xam ni def nañu jëf ju ñaaw drapeau bu Sénégal ak bu Nigéria ñoom doomi Guinée yooyu nekk ca diwaanu dëgg te drapeau bu Sénégal ak bu Nigéria ngir montrer seen naqar ci jàppale gi nga xamante ne ni président Macky Sall ak Mouhamed Buhari ñoo ngi koy jàppale seen président actuel bii ñoom doomi Guinée Bissau yooyu di wax ni Macky Sall ak Mouhamed Buhari yi war a bàyyi suñu réew seen yoon nekkul ci suñu réew lii moo leen naqari ba tax na ñu jël ay drapeau Sénégal bu Nigéria di ko dëggatee ci jamono boobu njaboot gi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seeni wayjur ak seeni mbokk ci batalo Joola seeni tiis ba léegi feragul seeni góomu xol saa yu 26 septembre ñëwee rek day gën a nàcci gannaaw suuxu batalo Joola gi ba benn solution boo xamante ne ni état bu Sénégal indi na ko ci Vox Populi ne suuxu batalo Joola kay dañ ci bopp nit ñi gannaaw fukki at ak juróom-ñett yoo xamante ni di ba léegi kenn indiwu ci lu leer critique yéene kaay ne dëj sax moo dul am ba léegi am na ñoo xam ne sax ba léegi mënuñu def seeni dëj ñeel ñi nga xamante ni nii ñoom la ñu ñàkk ci suuxu bato la Joola fukki at ak gi di boobu ba léegi état bi fi wees ak bi fi nekk ci yem kenn indiwu ci lu leer ci suuxu bato la Joola gi lii quotidien dalal moom kenn ci ndaw yi nga xamante ne nii ñàkk na ci wayjuram bu góor ci suuxu bato la Joola di wéyu ci turu Alassane Thiam moom nee na sama maam ba léegi mënul gëm sama papa génn na àdduna moo tax jamono ji saa yu yegsee rek du ma mën lu dul dem ba géej toog fa jàkkaarloog géej gi ngir di mën a imaginer naka la suuxu batalo joolaa ji amee Le Quotidien yéenekaay ne ca diwaanu Fatick de moom xëccoo bu metti moo am ci diggante Matar Ba ak Biram Fay jëm ci élection locale yi ñu jëm siin fi mu toll nii coono commencé na fa ci diggante Matar Ba ak Biram Fay source aané Abdoulaye Diouf Sarr mujj naa génn de mujj naa génn gannaaw coow bi nga xamante ne nii amoon na ci diggante agent wu commune bu Yoff bi ak marchand ambulant yi mbir yëpp la libération yéenekaay moom ñëw ci dog bi nga xamante ne nii mu ngi lëmbee ca diggante xaar yàlla liberté 6 ak Grand Yoff waa dik jàpp nañu gàngade waaw mafia bi la ñu jàpp toll na ci juróom-ñaari doomi aadama jamono bi ñoom ñëpp placé nañ leen en garde à vue Sud du Quotidien ne directeur des bourses de fi mu nii dafa jàkkaarloog étudiants yi nga xam ne dañu bëgg a dem ca bitim réew jàngee fa xëccoo bu métti mu am seen diggante ndax Khalifa Gaye mii di directeur des bourses nee na du jël benn risque di envoyé jamono bi ay étudiants ca réew ndax délai bi ñu leen joxoon jeex na ba noppi yéenekaay bi ne Macky Sall de fi mu toll nii mu ngi modifié décret yu bari ngir rek mën a xoolaat conflit yi nga xamante ne nii mooy nekk ci biiru foncier yi suufuk Sénégal gi niñ koy cëqat-cëqatee faaw mu taxaw ci moom président de la république ngir lii mën a jeex ñu jeexalee li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi ak suñu làmb mi ñuy xamal ni fi mu toll nii nag bala Gaye yaram bi doon xasan moom ci bëgg am solution ndaxte am na déjà ay adversaires yoo xamante ne nii ñoo ngi koy commencé tudd ci moom di ko dox donte Balla Gaye 2 ku ko am am client bu mag yéenekaay bi ne Tapha Tine kay moo nekk ci ay tolof-tolof amee défaite ci Ama balde fi mu toll nii Boy Niang moo ko desee te xamul sax ndax dina ci génnam déet